imaam ñu ngi lay nuyu nag am mbégte bu baax a baax di gërëm baax ñi àndal ci solution info TV euh, ñu ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu leen wax rek ñuy seetaan di partager mais aussi di commenter baax na ci bu baax a baax imaam tamit euh, di la nuyu di la dalal jàmm balaa ñuy sóobu ci waxtaan bi euh, actualité imaam yi bi ci mujj mooy ba amoon ca grande mosquée bu Dakar imaam Aline Moussa Samb amoon kàddu yu mu fa yëkkati woon nag ñu bari def ci seeni commentaire ñu teewlu ko dikkaat.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 Euh, mu doon eh, imam Alioune Moussa Samb ñu koy ziar bu baax a baax imam grande mosquée bu Dakar euh, mu doon ay kàddu yoo xam ne na ci xutbay euh, korité gi ci kanamu président de la république la ko yëkkatee ñun nag moo tax ñu jël tey boroom xam-xam di ab imam boo xam ne ajjuma ju mu taxaw ci ab la wala it wax ak askanam yenn saa sax mu jaarale ko ci réseaux sociaux yi kàddu yi ban jàngat nga ci am imam Mansour Diop. waaw. Omar bun Xattaab ñu ngi lay nuyu di nuyuwaat ñëpp. Mm-hmm. di wax rek ni kàddu yi dégg nañ ko déglu nañ ko bu baax waaye bala ma ciy tontu rek ma profité di jaal mbokk yi ci ñàkk seeni doom yëpp ak ñi ci ñàkk seeni rakk di leen wax ni kàddu yi imaam yi bu mu leen tiital ndax ñun jàng nañu ni ku ñu boom te tooñ la boom la aljana nga jëm moom nag li ñu mu wax moom la concerné moo ñuy wax fan la ko jàng waaye képp koo xam ne dañ la tooñ dañ la tooñ boom la léegi kooku moom aljana la jëm loolu leer na beneen bi ci des ma di ko ko laaj moom su fekkee ki ñu tooñ boom ko mooy dem safara waa ki boomaate ak ki ko yebal fan la jëm loolu mën nañ ci imaam tontu mm-hmm. ñi boomaate mm-hmm. ak ñi leen yebal nañu imaam wax fan la jëm ba ci desit wax na benn bayit bu am solo mu ne an nafsu kat tiflu in tuamilhu ba ala waaye ma delloo ko ci ginnaaw ca téere ba ca biit bu nekk ca ginnaaw muy wax sa dëcha isa min juu in wa min sibain fa rubba maxmasatin charru min atuqami ma koy wax ni ko alal ku mu tax a jaay sa ngor bis te na ñëw nga am ngàcce te it alal neex na lool waaye alxuraan ñun yàlla daf ñu ko dénk pour ñu wax nit ñi lan mooy dëgg te Euh, ku ne xam na ni injustice bi nekk ci dëkk bi jaay doole gi nekk ci dëkk bi loraate gi nekk ci dëkk bi toj gu nekk ci dëkk bi xale yi jóg di laaj seen àq ku ne xam na ni loolu bu dul jihaad lan mooy xobul jihaad xobbul watani minal iman su fekkee gëm yàlla léegi ki ci ki ki ki xeexal réewam nekkatul ci gëm yàlla na nu ko wax. mais imam est-ce que xale yi seen seen réew lañ doon xeexal wala nit lañ doon xeexal parce que dañuy gis ni yi fi mujj xew yëpp mooy Ousmane Sonko lañ woo. xale yi génn léegi xeexal nit ak xeexal sa dëkk wute na de. Ousmane Sonko dafa jiite projet bi xale yi soxla rek dafa nekk ci teet bi te it dafa am loo xam ne gis nga boo nekkee ci dëkk ñëpp di protéger kilifa dëkk ba protéger njiit ma ndax am na koo xam ne boo nekkee ci oto bu xe boo xefee ba chauffeur bi nelaw mbaamu daanu rek da ngay daanu. Mhm. loolu rek la xale yi bañ xale yi dañuy am yaakaar ci projet bii. te am yaakaar ci ki ko jiite itam looloo tax ñuy defaan mais seen réew la ñuy xeexal. est-ce jaroon na ak fi yàlla teg bakkan. jarul bakkan mhm. waaye nag ñi rey bakkan ñi mu jaral ñu jël fital tiire ñooñu la ñuy laaj est-ce que jar na ko wala déet mhm. mais xale yi ñoom li ñu def pour pour pour laaj seen àq ak seen yelleef dafa am lu xew Umar euh, moo mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ku taxaw ci sa diggante ak sa teraanga jaay ko bakkan ku taxaw sa diggante ak sa diine jaay ko bakkan est-ce que dégg nga li ma wax bu baax waaw lii nag su fekkee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko wax kon ñun ñu war a bay xel ni xale yii li ñuy xeex dañ ci am yaakaar dañuy yaakaar niiru ëllëg parce que sama bi dafa metti ñun ñëpp am nañu ay rak wala ay doom yoo xamante ne ñu ngi seeni seen toog amuñu fu ñuy liggéey bu ñu leen tegalee procès bu ñu am yaakaar danañ ko défendre défendre boobu ñu koy défendre nag moom mu wax ni ku ci dee safaral la jëm moom loolu moom la concerné de. Mm-hmm. waaye ñun li ñu jàng mooy képp ki ñu boom te tooñuloo ki la boom yow moom aljana nga jëm. Mm-hmm. moo ki dee ci ndox wala mu dee ci lakk mu ñooyam moom nag lim ñu wax. nañu wax fan la ko jàng ak fan la ko teg kooku moom la concerné moo ki muy neexal. daa am ku muy neexal kon balaa muy jox la kan lay neexal. waa xam nga Omar lay olof dafa wax ni ku sànqal ëmb sa kersa imaam Samb solde bi ñu koy fay ñun suñu TVA yaay suñu impo yi la kon dafa war a féete ak askan wi waaye warul féete ak ñu dul askan wi man li ma d'accord mooy li ñu koy fay pour mu waxal askan wi seen diine parce que itam maa ngi ciy profité di gërëm imam moor mbay déglu naa xutbaam ay quelques xutba déglu naa ko ay bi ma yi ma ci déglu bés moom ci gën a marqué muy sëriñ Mor Mbaye bu Touba li mu waxee su fekkoon waxee woon na ko kenn du mer parce que dafa wax ni président maa ngi koy ñaan fa mu toog maa ngi koy ñaan jàmm lañu soxla ci réew mi dinañ ko ci ñaanle waaye jàmm jooju ñu soxla ci réew mi nag ci loxoom la ne te loolu moo am ku yàlla def njiitu réew parce bopp bu ndaw du yenu réew mukk réew mi tey bu neexoon ma ki lu mën a xew jàmm day am ak lu mën a xew nag ci réew mi tey képp ku dul baale yàlla du la baal képp ku dul muñal muñ la yàlla du la muñal yàlla ku bëgg la da ngay muñal ñi nga tane yàlla ku bëgg mu baal la dangay baal ñi lay tooñ macha allah waaw imaam rafet na waxtaan wi am na solo moom dafa tari benn euh, aaya xawma am na lu mu tari nee na du waxi boppam li mu tari ak li mu firi benn la wala. li mu tari ak li mu firi maanaam li mu wax ci wolof ak li li li ab li may bi waaw du benn du benn déedéet ah, kon loolu ndax dafa wax ni waaw li mu wax ci arab daf ni an nafsu ka tifli dañu bakkan ak xale ñooyam in tomilhu zaba ala obi ridaai wa an taftimhu yan fatimi daf ni xale bu dee nàmp fekk feraloo ko du fer mu ni bakkan noonu la mel loolu lan la jotee ku dee ci lii safara nga jëm loolu tax ma wax ko fële ni ko wax sa ragalal dasaa isa lu ñaaw lu ñu lay ŋàññee min juuin wa min sibain ci boo ñàkkee ak boo amee ndax farub ba ma si xamante ndax ñàkk ak sa ngor. moo gën am ak sa ñàkk sa ngor. waaw kon moom léegi mën nañu noter kon bis ni ki tey ne bi muy wax safara moom loolu moom euh, indiwut aaya. kon dafa wax noonu rek. ay waxi boppam dafa wax noonu rek sànni. ay waxi boppam la waaw. voilà léegi beneen bi ne xam nga tey jii bu ma lay déglu nii ngay wax. bon peut-être man li ngay wax ni man je damay retrouver sama bopp ci wax ji ngay wax quoi parce que dama ciy gis sama bopp kontaan ci ni nga xam ne noonu nga koy waxee wax dëgg fa yàlla mais est-ce que tamit mais tey am na koo xam ne mi ngi toog fële peut-être mi ngi gis ni imaamu APR dafa am imaamu Sonko am comprendre nga est-ce que yow tey fi mu toll nii ki nekk côté APR bu lay dégg ngay wax est-ce que yow it du jàpp ni imaamu beneen parti nga bokk kii xam na ma ñoo dëkk man duma imaamu Sonko duma imaamu APR duma imaamu kenn ndax jàkk jamay xutba hmm. waa APR lu ñu def ci lu baax damay taxaw wax ko xutba hmm. wax ko waa opposition lu ñu juum damay taxaw wax ko hmm. man su ma doon nekk imaamu kenn kenn kon ma fes fa ma bokk waaye ku ne xam na ne man sama jàkk ba fu ñëwee di nga dégg xaala maam Haaj Malick di nga dégg xaala Sëriñ Tuubaa di nga dégg xaala ku ne kon kon kooku du imaamu APR du imaamu kel am na ñu ne pur nga bokk. ah pur. man pur laa bokk. Ah. taalibe Sëriñ Moustapha Sy laa loolu leer na. loolu it ku bañ ku bañ ku bañ féete ku ragal féete baaxul. man. pur laa bokk. taalibe Sëriñ Moustapha Sy laa mm. waaye nag. du ma tra du ma du ma du ma ab du ma du ma Sonko du ma appel waaw loolu man de mosuma dégg ci xutba mu tudd sëñ Moustapha déedéet lu ma fekk wu waaw Imam Mansour wala ngay dem waaw Imam Mansour fii jamono toll à la base lan mooy rôle imam parce que léegi imam yi bari nañu da ngay dégg ku nekk di wax da ngay romb jàkka bu ne wala juma bu ne dégg fa ñuy wax kan mooy imam ak pour tànn imam yan critère la fi ñu toll nii ba dem rek wax naa ko ci réunion imam bi fi ñu tollu nii crise bi nekk ci monde bi crise bi gën a garaaw mooy crise de valeur crise de valeur boobu gën a garaaw imam yi ñoo ko jiite ñoo ñàkk valeur ok man boo ma laajee wax la man ci laa bokk ok da ngay dem ci jumaa tey di julli imam téye micro di jaay jàng wu neex wala xam-xam ba nit ñi nelaw ci jumaa ji wala ñuy jóg di dem wala mu toog ci naafila téye nit ñi ba nit ñi di ko saaga wala ñu di ko jéppi ngir lan loolu. li nga wax nii sax ñu ngi koy tiktok. waa léegi loolu ñàkk valeur la. Mhm. laa jël kii man mu diggante bu ku bu weeru koor teroo diggante fi ñuy umee koor ak fi ñuy war xanaa ma ñàkk jiite waaye heure bu ma jiitee diggante fi may kàbbare gée ak fi may bàyyi nit ñuy dem vingt minutes du ko génn. loolu dégg jamono la. baax su ko defee. Ah. waaw mais da ngay dem ba dootoo ci am. tiyaaba ah. ay 16 rakka ay 20 rakka nga tey. man ñeenti rakka lay yooyu noonu benn Faatiha lay jàng benn lixlaas. waaw dama dama dégg Serigne Cheikh Moussa wax benn wax mu ne Sénégal dañuy tabax jumaa bu mu rafet ñu màbb ngëm. <laughs> kon imaam yi dañu war a xoolaat seen bopp. xam ni li ñu jàng ci alxuraan xajul mm. ci jataay. déedéet imaam lii rolam mm. mooy mu xam ni. dèjà léegi li nit ñi lekk nit ñi amatuñuy tànk yu mën taxaw taxaw bu yàgg benn ñu war a yërëm nit ñi war a it ànd ak askan imaam dafa war a ànd ak askanam lépp loo xam ne luy defar sa gox la man de sama koñ lépp lu koy defar lépp ak képp ku ñëw pour defar koñ ba maa ngi ànd ak yow. yéen imaam yi ay agents municipaux ngeen dañ leen di fay ci maire bi wala ku leen di fay. Ah, musuma fay yéen duñ leen fay. déedéet. mais léeg-léeg ñu jox leen xaru tabaski. mosuñu maa jox xaru tabaski. Ah. non mais day am laa wax waxuma la yow dañ laa mas jox <laughs> mais xam naa gis naa ay imaam yoo xam ni maire yi seen xaru maire dañ leen di gërëm man may jëndal xaru tabaski mu ngi a dugg ci politique ren musuma gis mu dugg ci politique maam Gana Kebe mooy mooy acteur de développement man dama bëgg saa nga baal ma rek dama bëgg ñu taxawaat ci mbirum valeur yi nga wax ni euh, ni nu demee di ko perdre imaam yi am nañ ci role bu rëy waaw bi ko war a jàngale waaw kañ war a war a wax ak nit ñi mm. delloo si jikko nit ñi waaye yow mi koy jàngal da ci war a jiitu benn mooy yërëmal nit ñi ba pare àndal ak ñoom <coughs> li ñu nekk nekk ci li ñu bëgg bëgg ko dégg nga wax ji boo ko defee nit ñi man la déglu man léeg-léeg damay xutba ba génne nit ni ma sa xutba bi la gàtt rekk ko yàq ma ne ko du fi téye nit ñi bu gàttee saf te jariñe na mais que yéen ñi leen gi ñu dem non demal mais kii dama dégg si wax léegi bi la bétti kii nga ne euh, fay fayuñu leen ba pare joxuñu leen xaru tabaski. comme comme yow. léegi est-ce que loolu loolu tamit du dugal yenn imaam yi est que waruñu leen doon di leen fay salaire yu baax comme imaam jiit la euh, kilifa la si si dëkk bi di leen fay salaire yu baax yoo xamante dina tax ñoom ñu mën a nekk niveau boo xamante ni duñ duñ topp di waxal kenn wala wala wala ñuy jéem a kii parce que nit ki tamit wax nga ko début bi ku ëmb sa sànq kii ëmb sa kersa waaw voilà voilà ah, man de loolu rek laa ciy ragal maanaam maire yi di ñu fay ba pare bëgg ñuy jaar fi ñu bëgg te man boobaat dama leen di delloo seen sol nga am sa autonomie man moom man moom képp ku may fay yaakaar ne damay jaar ci li ngay bëgg dama lay delloo sa sa am am liggéey la seen waaye nag li nga wax ni comme ñun fu askan wi fu ñu woo ñu jóg lu xew ñu jóg ñooy tudd doom yi ñooy takk sëy yi ñooy dem taxawu ñi faatu kooku dañ ko ameel àq ci ci ci ci ci ci ci société bi dañ ko war a fay ni ñuy faree tey imaam sàmb xëy na noonu la ñu war a fay ñëpp c'est li muy wax nii man ànd naa ci imaam yi ñu fay leen mais bu mu nekk fay boo xam ni day nekk fayu maanaam politicien bi dafa ñëw rek pour kii am mu jaar ci kii yoo xam ni nga xam ni du nekk corruption quoi tey ji am na système bu muy jaar boo xam ni mën nga leen a fay ñu xam ni même bu keneen ñëwee ku mën a ñëw ñoom am nañ li nga xamante ni bi mooy seen salaire normal loolu war na ne parce que imaam yi dañuy liggéey liggéey bu am solo ci biir quartier yi loolu. waaw mais sànq dafa am benn koo xam. damay damay dellusiwaat kàddu gi. il faut ñu ñëw tamit ci xëccoo jiite yi. non non 1000 francs yi kay laay laaj est-ce ab imam sañ na toog ah? xam ne kii dafa ne kii laaj bu ko kenn jox Alioune Moussa imam Alioune Moussa Samb. Ah. mais moom jamono boobu mu naan bu kii laaj bu ko kenn jox am na ñu ne mu ngi doon laaj ci mi francs yi waaw ah, nee léegi est-ce que est nit sañ na ko moomale boppam. waaw maanaam wala am askan jël jumaa moomale ko seen bopp est-ce que loolu. Euh, moom nee na nee na sama juma ji ku fi ñëw. Ah. dama da ngay da ngay joxe 1000 francs ah. waaw bu fekkee jumaa ma nit ñi sax waratuñ faa jullee ji. xam naa dafa juum xëy na. waaye daal juma néegu yàlla. Hmm. yàlla moo ko moom. Hmm. néegu yàlla man de sama juma ba ñu fa daan laaj ay cotisation Ah, yow it sa juma. boo ñu fa daan bi dama la ne <laughs> boo ma dégloo ma leeralal la. dama la ne ba ñu fa daan laaj ay cotisation pour dalee jumaa ji. Ah. Hmm. boobu dalee guñ ah. maa xëy ne leen amul laaj kenn du fi laaj cotisation. Hmm. yàlla ku mu jaral def ku mu jaralul baal maa ko arrêté. man maa ñëw xut ba arrêté ko. ñu commencé su su tabaski jotee ñu wër ni dañuy laajal imaam tabaski. man leen soxlawuma. arrêté ku ñu ñëw ci yow ni la imaam la ñuy laajal tabaski bañal. dinaa ko jënd. waa mais saa mi ngi wax lu am solo léeg-léeg da ngay dégg ni imaam yaa ngay xaañante imaam yaa ngay. Euh, xuloo jiiteeg yooyu bu jaral leen chaise yéeg yëpp jóg. Ah. mais loolu lan moo koy waral imaam ku koy tànn sax moom ci gox. ñàkk xam boppam imaam buy xëccoo rek. xamoo sa bopp mais ku leen di tànn yéen ci gox. imaam li war waa jàkka ji ñoo war a daje. Ah. seet ki nga xam ni moo fa ëpp xam-xam. te ragal nañu nii kenn kënu ko fa maandu. te jub na ñu fal ko. mais bu ñu demee ba yëg ci moom ñàkk a maandu. ñàkk ragal yàlla dañ ko war a folli. Ah, folli waaw. man de. Hmm. du ma mus a xëccoo imaam man de sama jàkk coow yi fa am yi bu fa mus a am. Ah, bu ne yaa ngi naan sama jàkk rek. waaw dama leen ni dama leen ni jàkk jumaa ji may jiite coow bu fa mus a am. imaam yi daanaka dañoo def ne ñoom moom jàkka yi de. waaw dama leen ni imaam jumaa ji may jiite man nekk fa imaam ratib coow bu fa mus a am. dama leen di wax ni leen. su dee dama leen doyul pare naa pour dem mbooloo mi jóg déedéet déedéet déedéet ma ne ah kon nag. est-ce que nekkul da ngay natt sa doole des fois imaam du natt doole mm. li may wax dëgg la ci man. Uh-huh. soo boobu it bu ñuy d'accord may dem. parce que dafa am loo xam ni mm. boo ko xëccoo rek moomu ko cër. Mm. Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum daf ni cër ku koy xëccoo moomoo. man du ma xëccoo cër wax naa ci sama xut ba barki dem ni lépp lu ma waay gën a bëgg muy alal ji ma moom sama bakkook yow man du xëccoo dara. defe définir ñan ñooy ñan ñooy fal mbooloo rek la wax. bu ñaar di xëccoo ne kan moo leen di àtte kan mooy àtte pour kan moo war a nekk. normalement bu dekkee ñaar dañoo dañu xut xëccoo ci jàkk imam yi lañu war a woo imaam yi nekk ci gox boobu lañu war a woo ñu ñëw. Ah, ñoom ñoo war a daje. Mm-hmm. xool ki war a jiitu ak ki ci war a topp. parce que ñoom imaam yi bu ñu waxtaanee ak ñoom danañu xam waaye gis nga sart yi nga xam ne moom la chariatul islam yi wax. imaam war ko mel buñ ci testé fii téeméeri junniy imaam. waaw ah juróom-ñett fukki junni yëpp dañuy daan duñ dem. duñ dëkk bi lakk toog tamit si diggante ki toog tamit euh, jàkkaarloog président est-ce que dina président de la République est dina yomb ci moom tamit mu wax leneen. kooku la gënoon yomb ci moom man de moo jàkkaarloo woon ak président dinaa ko ni. incha allah président réew mi jàmm lañu fi bëgg hmm. ñu ngi lay ñaanal it réew mi am jàmm waaye jàmm joo ci yow mii lañ ko gën a yaakaar kon ñu ngi lay ñaan nga dox ci jàmm wax ci jàmm ah, loolu lu baax la loolu bu ko waxoon kenn du ko sikk déedéet amaat du ko sikk imaam kaddu euh, benn message ngay mujjee rek euh, tàggootoo xanaa di nuyu waawal fajiri yëpp euh, ni ma ko waxee woon rek di nuyu sama sëriñ sëñ aadi ak sëriñ Cheikh Eh, di ñaanal seen way jur wu teddoo fu mu tëdd yal na yàlla yokk leeram te jéggal ko ah di nuyu alaaj saa njóogu bu baax xam ni reeloo na ma nag ba <laughs> ba ma kii ba ma bëgg dee moom ak Assane eh, su ko defee comme lu ngeen may reeloo dafa metti lool léeg leen ko wàññi <laughs> asalaamaaleykum Kër Massar moo ñu fa dalal doon tamit jàngalekat euh, bari na ñu bari ci moom lan mokkale ñu koy ñaanal suñu borom dimbali ko di bàyyi xel tamit ki toppoon ci ginnaawam yenn saay bu bu bu ñëwul wala mu wute imaam Ibrahima Meng. waaw moom dafa gaañ fan dafa gaañ ci koor gi. ñoo dend kër yàlla na ko suñu. première juma bi ci koor gi sax moo ko jiite. ndeysaan après samedi ji mu. waaw mu ngi noonu yàlla na ko suñu borom te xaare ko àjjana. waaw ñu koy bàyyi xel ak njabootam yëpp di la ñaanal yoo tamit kontaan nañu ñëw bi yombul mais suñu xol sedd na bu baax imaam yàlla na suñu borom bàyyi amiin jërëjëf mu doon imaam Mansour Diop jóge ba Kër Massar ñu ngi koy remercier ci disponibilité bi xat na waaye ñëw na di ko jaajëfal bu baax a baax